mi ngi ci fan yi mujj yi di ñaan sunu borom subhanahu wa taala nangu ñu suñuy jëf yu baax yi ci def ci koor gi yépp waaye jégal ñu suñuy rëcc rëcc di ñaanal bu baax a baax sunu kilifa yi suñu borom gën leen a kàttan ak man-man nangu leen seen liggéey yépp ak ñu topp seen ginnaaw leen jàppale ci lépp lu baax waaye di ziyaar ñi topp jotaay bi yépp di leen nuyuwaat bu baax di leen dalalaat fii ci biir jumaa ji ci waxtaan yi nga xam ne baaxoo nañ koo amal bis bu nekk ci weeru koor waaye it baaxoo koo amal ci ay tomb yu am solo di ko ànd ak ay boroom xam-xam yu ñu xam wóolu seen xam-xam e, ay boroom xam-xam yoo xam ne tomb yi ñu leen di jox boobu ba léegi seetlu nañ ne ñu ngi ci def seen kemt kéemtulaay kàttan ci di ko jéem a nos di ko jéem a yaatal waaye tamit di ko jéem a leeral ci anam gam gën a rafete tomb tay bi comme ni ngeen ko xame ni leen ko waxee woon démb rek dafay jëm ci euh, tànn njiit ak warteefu jullit ci wàllu googu al intixaabaat euh, wa waajibul muslim tijaaha mooy ni ñuy tànne njiitu réew wala njiit rek bu mën a doon mën naa nekk njiitu réew mën naa nekk njiitu gox mën naa nekk njiit lu mën a doon rek koo xam ne dafa war a jiite nit ñi ci seen wàllu àdduna niñ ko war a tànne ak ban taxawaay la ci ab jullit war a amee muy tomb bu am solo it boo xam ne ñëw na ci barabam ñëw na ci waxtoom ndax gis nañ ne jamono fi ne jaxasoo na lool kenn ku ci ne yaa ngi am fooy far waaye kenn ku ci ne yaa ngi am foo gën a jooyal sa yaakaar jëme kon baax na lool ñu xam ki nga xam ñi nga xam ne ñoom lañuy ñu tànn euh, ban melokaan la war a amee wala boog yan melokaan lañu war a amee waaye baax na ñu xam ñi tànn ban taxawaay lañu war a am ci tànn googu ak it ci yan fondement la ñuy taxaw lañuy ñuy tabaxee seen tànnin woowu doom boobu ñu nar ànd ak koo xam ne xam nañ ko ci muy waxtaan ci wàll gi. yaakaar na kenn du ko présenté te kenn muy Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud ñu xaar ci moom lu baree bare it di ci am yaakaar bu baax a baax mu fecc ko ci tomb bi di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak taysiir di ko jébbal kàddu gi kon sëriñ bi bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Abdou Khadir noo lay delloo nuyoo tey nuyu mbokk fi teew yépp ak képp ku sunu kàddu di àgg ci moom di ñaan koor gi nu nekk ba muy bëgg a jeex yàlla dimbale ba nu àggale ko ci jàmm ba mu nangul nu ko delloo siwaat ko yoon yoon yu ni fekk ci jàmm ak wér akuk al waxtaan wi ni ko sëriñ Abdou Xaadir waxe rek mu ngi jëm ci tànn tànn njiit tànn njiit manees naa wax ne lépp lu ci aju rek lépp lu ci aju tànn njiit nag bon ko seetloo dafa dugg ci biir li ñuy wax politique ci politique la dugg ci politique la dugg kon dana baax ñu njëkk wone taxawaay bi lislaam am ci politique politique lan mooy atteem ci lislaam am na ñu bari ci nit ñi dañoo jàpp ne politique moom daanaka yoonu lislaam nekku ci yoonu yàlla nekku ci mbirum nit ñi la ñoo ciy doxale nu mu leen soobe ba dañ naan fii rek la yam fii rek la yam mbiru àddina la lu mel noonu nag dana laaj kon nu seet ndax dëgg-dëgg noonu la demee wala déet bu nu dee seet nag dañuy jàpp ne moom mënut a deme noonu ndax lenn lu lu yem fii rek moom amut fii rek mooy àddina loo xam ne àddina rek lay yem du am jeexit ci àllaaxire nit ki loolu moom dëgg-dëgg amul ndax nit lu mu def benn mu doon lu baax walla mu doon lu baaxut te yàlla nee na ku def lu baax lu mu tuut tuut tuut bu àllaaxira dana ko gis mooy kon du yem fii ku def lu bonit lu mu tuut tuut bu àllaaxira dana ko gis fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara kon amut lenn rek luñ mën a wax ne fii la yem li tax mooy yàlla dañoo xamal ne li tax mu bind noonu noonu nit ak ñoom jinne li tax mu bind nu mooy mu jaamu ko rek mu jaamu ko rek wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li ya'budun bu dee nu jaamu ko rek a mu bindu nu kon danañ war a xam ne kon jaamu ko lu yaatu la war a doon waaye du doon rek li nit ñi baaxoo tudde jaamu yàlla lu mel ne ay julli ak woor rek yu mel noonu yooyu ñooy ponk yi ñooy ponk jaamu yàlla yi waaye dëgg-dëgg jaamu yàlla mooy nit ki dundam gépp rek lu mu ciy def mu defe ko ne ko yàlla bëgg dundam gépp loolu mooy tax mën a mat lu tax ñu bind nit bu fekkoon ne julli ak woor ak natt asaka ak yoon rek a tax ñu bind nit kon li li des ci waxtoom yépp nag kon fan lay dugg waaye dëgg-dëgg li tax yàlla bind ko mooy bëgg lu muy def lu ne mu dëppale ko ak bëgg-bëggu yàlla te loolu rek mooy jàmm yàlla ko moo tax dañ naan jëpp jëf joo xam ne yàlla gërëm na ko moo xam mu feeñ moo xam muy lu nëbbu loolu mooy jaamu yàlla kon nag lépp lu nit di def rek mën naa doon ak jaamu yàlla dafa war a doon ak jaamu yàlla na koy doone rek mooy mu dëppoo ak na ko yàlla bëgg kon politique mënut a génn ci mënut a génn ci lu mën a doon ak jaamu yàlla mënut a génn ci lu mën a doon ak jaamu yàlla lépp ak jaamu yàlla politique nag ay anam yu wuute lañ koy defal waaye dëgg-dëgg politique rek li muy firi mooy saytu mbirum mbooloo mi mbirum mbooloo mi di ko saytu dëgg-dëgg loolu rek mooy politique kon lépp loo xam ne rek day taxa baaxal walla gën a baaxal mbirum mbooloo mi rek ku cay ku ca bokk rek man na naa wax ne ma ngay politique ak anam bu mu ca bokk anam gu nit mën a bokke ci luy tax mbirum mbooloo mi gën a baax gën a jag anam googee anamu politique la lépp kon dee dugg ci politique mu doon nag ay anam yu wuute ni ma ko waxee manees na ko waxee ay tolluwaay yu wuute am na tolluwaay bopp moom mooy koo xam ne day yittewoo rek day yittewoo mbirum mbooloo da ko yittewoo ko yittewoo lu ci gis muy dox mu dëgëral ko lu ci gis mu sooxe mu feeñal ko feeñal lam jàpp ne mooy tax mu baax loolu ak anam la ci ci politique nga xam ne kon koo xam ne day seetlu daal mbir yi di ci wane xalaatam itam loolu ak tolluwaay la ci am na ñu mën a weesu foofu mën a àgg ci sax ne ñoom dañoo bëgg ku leen dénk ku leen dénk mbiri mbooloo mi loolu moo gën a kawe yëwuñ ci di ci wane seen xalaat rek waaye àgg nañ sax ci bëgg ñu leen koy dénk ñu leen di dénk mbiri mbooloo mi ngir ñu man koo yëwénal ngir ñu man koo gën a baaxal loolu ak anam la ci geneen anam nag mooy buñ demee bay dénkaane nga ñëw yow bokk ci ñiy dénkaane nga ñëw bokk ci ñiy tànn buñ demee bay tànn bokk goo bokk yow ci ñiy tànn loolu tam politique la ndax ñi ñuy tànn dañ leen di tànn ngir ñu saytu ak yéwénal mbirum mbooloo mi mi bokk ci ñuy tànn kon yaa ngi bokk ci ñuy jéem a yéwénal mbirum mbooloo kon yooyu yëpp ay tolluwaay la ci wàllu politique yoo xam ne wuute nañ waaye yëpp rek ci politik lay dugg ndax yëpp day dugg rek ci bokk ci luy yéwénal mbirum mbooloo mi bokku ci luy gën a baaxal mbirum mbirum mbooloo buñ gisee ne loolu mooy politique kon danu naan politique kon farata la farata farata jooj duñ ne farata la ci diw sàngam wala ci kenn ku ne waaye farata mu am ñu ca taxawe farata la am ñu ca taxawe ñu doy ci anam gu baax bu amee ñu ca taxawe ñu doy ci anam gu baax ñépp wàcc ñépp wàcc bu loola amul nag xam ne wàccagul loolu la ñuy tuddee fardu kifaaya mooy farata joj duñ ne kenn ku ne la war waaye mbooloo mépp la war mbooloo mépp nag duñ ko man duñ ko mën a defandoo ñoom ñëpp ñëpp ñëpp waaye kon bu amee ñu ca taxaw rek ci anam gu doy rek ñëpp wàcc politique kon foofu la dugg ndax lii nu wax lu mënta ñàkk la ndax lu mënta ñàkk ci dund gi rek àtte boobu la yor lépp loolu mënta ñàkk ci dund gi ab atteem moo di ne taxaw ca ba mu am fardu kifaaya lay doon taxaw ca ba mu am fardu kifaaya lay doon politique nag ci maanaam yi ñu wax tey lu munta ñàkk ci dundum nit ñi ndax dafa am luñ bokk lañ bokk dañ ko war a saytu saytu googee kon lu munta ñàkk la lay tax mu am nag mooy li ñuy tuddee politique kon day doon farata ju war mbooloo mépp bu bu amee ñu ca taxaw ci anam gu doy rek ñépp wàcc te ah? bu amee ñu ca taxaw mooy di ca taxaw kon bokk ci ci anam yooyu ma wax ku ci bokkee ci anam yooyu rek la muy def lu baax la lu baax ak jaamu yàlla la bu fekkee rafetal na yéeneem ak jaamu yàlla lay doon lu baax lay doon tuyaaba ju mag la ca mën a ame tuyaaba ju mag la ca mën a amee ndax ki koy def ci anam giinu wax mën naa jariñ mbooloo mu baree baree bari te nag jëf yu baax yi lu ca njariñam gën a yaatu rek moo ci gën kuy def lu njariñam yam ci boppam rek kay def lu njariñam amu ñeneen la muy def moo ëpp moo ëpp tuyaaba moo moo gën a baax te politique ci anam gii wax na ku koy def njariñam mën naa yaatu lool bu dee ci dëkk la koy def njariñam mën naa daj waa dëkk bépp bu dee ci am réew la koy def njariñam mën naa daj waa réew mépp mën naa koo def sax ci foofu njariñam dana weesu am réew sax kon lu am njariñ lay doon lu am tuyaaba lay doon ak jaamu yàlla lay doon bu mag muy politique ci anam yi wute yi ñu wax yépp waaye loolu lépp nag lay tax mu mu demee noonu mooy ki ciy duggu dugge ci njariñul mbooloo mi bañ cee dugge njariñul boppam mooy lam cee def lam ci jublu mooy sottal njariñul mbooloo mi njariñul mbooloo mi nag bu sottee moom njariñam man ci biir ndax mu ci biir mbooloo waaye sottal njariñul boppam du ko ca du ko ca tax dugg du ko ca tax a yëngut njariñul boppam moom la njariñul nit yi boppam loola du ko ca dugal waaye la ko cay dugal mooy njariñul mbooloo mi njariñul mbooloo mi nag bu sottee njariñam ma nga ca biir njariñul nit nit yi boppam it ca biir waaye moom njariñul boppam du moo koy yëngal njariñul nit yi boppam itam du ñoo koy yëngal loolu kon mooy àttam jëmmi politique ci boppam rek ci anam yu wuute yooyu yu nu wax bu ko defee nag li ñuy wax nag tànn tànn mooy élection élection mooy tànn tànn mooy lu mbooloo moom mbooloo luñ moom ñu tànn kuñ ko dénk wala ñuñ ko dénk mbooloo bu ñu moomee dara duñ mën a àndandoo ñoom ñëpp di ko taxaw di ko saytu waaye dañuy tànn kenn ne ko saytul nu ko wala ñu tànn ñenn ne leen saytu leen say saytul leen nu ko tànn yi am ci réew mi bu dee fu mel ne Sénégal danañ tànn ku ñuy dénk jiitul réew mi mu jiite ko ñu élection présidentielle njiitul réew tànn njiitul réew mi am na it ñu ñuy tànn ngir ñu teew te fa ñuy wax pencum ndawi réew mi fa nga xam ne daal fa la ñuy nase ak a noccee fa la ñuy tërale ay yoon foofa it dañuy tànn ñenn ne leen nañ ñu fa teewal mooy élection législative muy député yi bu dee Sénégal am na élection yoo xam ne dañuy tànn ñu jiite dëkk yi dëkk yi dëkk yi itam ñu tànn ay nit ne leen na ngeen ñu taxawal ci dëkk bi mooy élection euh, fi mu ne dañu naan local local walla municipal am na département yi itam am na ñu koy dénk ñoo xam ne dañ leen di tànn ñu élection départementale kon xeeti tànn yooyu ñoo am ci ci senegal yoo xam ne dañuy woo nit ñëpp ñi nga xam ne yoon may na leen ñu bokk ci ñuy tànn ñu woo leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen tànn kuñ dénk ñu jiital nu réew mi wala ñuñ dénk ñu ñuy taawal ca pencum ndawi réew mi wala ñuñ dénk dëkk bi wala ñuy dénk département bi xeet yooyu yëpp ay élection la yoo xam ne day am ci xeetu Sénégal bokk ci nag bokk ci lan mooy àtteem wax na jëm politique ci boppam te ëmb na loolu nee nañ lu baax la buñ ko defee nañ ko war a def kon élection ci biiram la dugg kon moom buñ ko defee nañ koo def lu baax lay doon lu baax lay doon lu tax mooy day wane ne ki ci bopp mu ngi yittewoo mbirum mbooloo mu ngi yittewoo mbirum mbooloo te nit dafa baax mu yittewoo mbirum mbooloo ma mu bokk moo xam ci dëkk bi la moo xam ci réew mi la moo xam ci département bi moo xam ci bépp euh, waaye it bokk ci élection rawatina kii tànn ndax bokk ci ñaari anam la bokk ci mooy ki ñëw bëgg tànn ko da caa bokk waaye ki ñëw di tànn itam da caa bokk ñaar ñëpp moom ku ci ne day wane yittewoo bu yittewoo mbirum mbooloo mi ki ñëw ne nañ ma dénk mbirum mbooloo mi ngir ma yéwénal ko kooku yittewoo na mbiru mbooloo mi ki ñëw ne man tam danaa seet ñu bëgg ñu dénk leen ko seet ka ma ca gën a doy ma dénk ko sama wàll kooku te ma nga yittewoo ngi ba mbooloo mi waaye kii tànn da cee dolli moom ne dafa dafa day seere day seere seere ndax dëgg-dëgg li muy firi seere lay firi bu ñu ne dañuy dénkaane am ku ñëw ne bëgg naa ñu dénk ma keneen ñëw ne bëgg naa ñu dénk ma keneen ñëw ne bëgg naa ñu dénk ma bu ñu ne ñëw leen tànn mooy day mel ne ñëw leen seere mooy kenn ku ne na ñëw seere lu mu xam ci ñii na seere kum ci jàpp ne ñu dénk ko moo gën na seere kum ci jàpp ne ñu dénk ko moo gën kon day mel ne élection atteb seere lay yor ci kii tànn dañ koy seere loo te seere nag day lu am solo ci day am lu am solo ci lislaam yàlla dafa dafa dafa tere ku nëbbu seere ku nëbbu seere mooy kuñ aajowoo seereem mu bañ koo andi da koo tere wala taktumu shahaada wa man yaktumha fa innahu aasimun qalbu bu leen di nëbbu seere kuy nëbbu seere kuy def bàkkaar la kuy def bàkkaar la kon kii bokk ci élection di tànn kooku moom ma ngay def seere sa nga xam ne dañ koo sàkku ci moom te seere kuñ moom da ko war a da ko war a jox ba tey kii tànn itam li muy def day taxaw taxawaayu jaayante bu njëkk jaayante lañ daan wax bu njëkk jaayante lañ daan wax mooy réew mi ki koy jiite dañuy jaayante ak moom jaayante bu njëkk mooy nga ñëw ba ci moom woon ko ne nangu naa nga jiite réew mi moom lañ ko defe bu njëkk nangu naa nga jiite réew mi buñ demee ba ñu ëpp ànd ci kenn boobaa kenn du saña a beru kenn du sañ génn li ñépp ñëpp ñi ëpp ñi ëpp la dëppoo kenn du ko sañ kenn du ko génn yonent bi nag loolu tam da ko fonkoon muy jaayante ndax mooy mooy wane kàddu gi ak baat bi bennoo gi mu gi mu bennoo ñépp àndandoo seen kàddu ak seen baat ñu dénku kenn loolu day lu am solo ci luy mën a may doole am mbooloo muy bennoo am genn kàddu am benn baat moo tax yonent bi daan di wax ne koo xam ne fekk na nit ñi jaayanteeg njiit moom mu bañ a topp ndigalam ba a dugg ci jaayante ga moom bañ caa dugg nee na ku ko def ba faatu faatu na ci ceddo faatu na faatu ceddo wala faatu na ci ceddo mooy ci lu dul lislaam rek kon gis nga ni ko fi mu ko àggale muy jaayante bu nit ñi tànn njiit kon nga ñëw wane ci sa xalaat nga ñëw wane ci sa xalaat mooy nga nga jàpp ne yow moo gën nga ne kii la mu noon seere waaye defaale nga jaayante bi nga xam ne itam yonent bi def na ku ko defut ba faatu da faatoo na ak loolu kon day wone ne bokk ci élection lu am solo la moom it ndax lii muy firee tax day firi yittewoo gu nit ki yittewoo mbirum mbooloo mi day firi itam ne nit ki laaj nañ ko seereem joxe ko day firi it ne nit ki def na jaayante bi nga xam ne yonent bi da ko fonkoon lool ba wax ne ku ko deful bu ci faatoo faatoo na ak cedd ni ma ko waxee léegi bokk ci élection ci ñaari anam la kii daa ñëw bëgg ñu dénk ko bëgg ñu tànn ko kii moom mooy tànn ñaari anam yooyu yëpp am na ci ku ci ne nag am na lu ko war bu dañuy wax lan mooy taxawaayu jullit ci élection kon ci ñaari anam yépp la ci bëgg ñu tànn ko ak ci tànn ci bëgg ñu tànn ko moom lan mooy waru garam nit ñi ñooy dénkaane dañ ne dañoo bëgg a dénk njiitul réew mi lañ bëgg a dénk kenn walla Euh, ñuy teewal teewaay bi ñuy teewal nit ñi ca penc ndawi réew lañ ko a dénk ñenn xeet yi ñu wax yépp lu ci ne daal lu ñuy dénkaane la kon nit ñee ko moom di ko dénkaane bu ñu koy dénkaane nag am na ñu ñëw nu noonu bëgg na lu dénk nu man bëgg naa ñu dénk ma bu dee kenn la bu dee mbooloo am mbooloo dajaloo ne noonu bëgg na ñu dénk nu kon ci ci bëgg ñu tànn ko lii waru garam mooy mu wan nit ñi lu tax ñu war koo tànn lu tax ñu tànn ko moom gën ñu tànn keneen ndax bu mu waxee keneen wax na keneen wax waru garam mooy mu won nit ñi lu tax ñu war koo tànn moom bañ a tànn kii bañ a tànn kii lu tax ñu tànn ko moom gën gën ñu tànn kii gën ñu tànn kii loolu la war a wane loolu mooy moom la ñuy wax campagne électorale ci lañ koy wane loolu lay firi campagne électorale mooy ci bëgg ñu tànn ko ñëw ni nit ñi bëgg naa ngeen dénk ma lii lii a tax nag ma bëgg ngeen dénk ma ko lii a tax ma jàpp ne ngeen dénk ma ko moo ëppal njariñ mbooloo mi ngeen di ko dénk diw mee ne bëgg na ko moom itam ak diw mee ne bëgg na ko moom itam loolu lépp ci gàttal mooy campagne mooy campagne électorale kon loola rek la war a def woone lu war a tax nit ñi dénk ko bañ a dénk keneen loola nag mën naa wax lu mu fas yéenee def ak nu mu ko fas yéenee defe lu mu fas yéenee def ak nu mu ko fas yéenee defe ñee di laaj ne moom itam lu mu gis ca lañuy lañ bëgg a def tam jàpp ne gënut sañ naa wax ne diw mee di laaj nag bëgg naa def nangam waaye loolu xam ngeen ne gënut sañ na loolu loolu duggut ci ci ci tooñ ko wala yàq deram wala dara waaye day wone lu lu mu jàpp ne war naa tee ñu dénk ko kee bi mu wonee ci mbirum boppam lu mu jàpp ne war naa tax ñu dénk ko ko moom ci muy jàkkaarloo tam sañ naa wone lu mu jàpp ne war naa tee ñu dénk ko ko lépp nag nay aju ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy dénkaane liggéey bi ñuy dénkaane na ca aju loole kon dañ cee déggee ne xas xasante waru cee am xasante waru cee am yàqante der waru caa am ndax jëmut foofu fi jëm rek mooy ñi ngi dénkaane man bëgg naa ñu dénk ma ndax lii ak lii ak lii kee bëgg nañu ñu dénk ko waaye dénk ko gënut ndax lii ak lii ak lii waaye du àgg ci di ko xas walla àgg ci di di ko sosal am na ñu bari day jàpp ne ñoom bu ñu dee xëccoog nit daal nuñ mën a def rek ba yàq daram ci nit ñi rek baax na nuñ mën a def luñ mën a wax ba nit ñi wan ko ginnaaw rek baax na loolu nag doxinu politique la bu baaxul doxinu politique la bu baaxul boo xam ne yaatu na ci àddina si waaye nag baaxul te ñoom ñooy ñuy wax rek ne nit ki daal li bëgg rek moo am solo nu mu ko sottale baax na nu ko sottale baax na li am solo rek mooy la nga bëgg na sotti noo ko sottale baax na bu dee xas nit mooy tax nga sottal ko baax na bu dee sosal ko moo tax baax na bu dee tuumaal ko moo tax baax na loolu aw doxin la boo xam ne bokk dëggul lislaam lislaam moom ab noon sax noon te fii du noon fii du mbirum noon waaye noon sax danaa na nga maandu sa digganteeg moom noon noon sax na sa diggante ak moom am na lu rëy lu luñ defoon jullit ñi muy dox seen digganteeg kaaba bi yàlla ne ñii nga xam ne ak noonoo dañoo dox seen diggante ngir dañ leen a dañoo dox seen diggante kaaba bi sax loolu lu rëy rëy la waaye teewut mu ne leen loolu nag bu mu tee ngeen maandu seen diggante ak ñoom bu mu seen diggante ak ñoom ne daal kuy séq ak nit na ca maandu doonte day ab noonam sàkkantuma li nga xam ne du ak noono waaye ak wuute rek la ak bokk luñ bëgg lool dañ koy dénkaane kii ne bëgg na ñu dénk ko kii ne bëgg na ñu dénk ko kon ñoom bëgguñoo weesu rek ku nekk wone la tax mu bëgg ñu la tax mu jàpp ne war tax ñu war koo ak la ne ca keneen lu naa tee ñu dénk ko kon lépp lu dugg nag ci xasante walla yàqante der walla tuumalante walla sosalante loolu lépp dara waru caaram loolu mooy ci ñi sàkku ñu dénk leen ñi sàkku ñu dénk leen kon waru garabam mooy ku nekk wone wone lu mu jàpp ne moo war a tax ñu dénk ko wane ca moroom ja itam lu mu jàpp ne moo war a tee ñu dénk ko waaye nangu it nag ne man kat damay sàkku rek waaye nit ñee moom nit ñi ñoo moom ñooy dénkaane dama leen a laaj ngir ñu dénk ma keneen laaj ngir ñu dénk ko kon nag nit ñee moom kon nit ñi moom nag lañ def rek lañuy nangu sàkku na waaye buñ buñ dénkee keneen tam ma ànd ci sàkku na waaye buñ dénkee keneen it ma ànd ci kenn ku ne loolu la war a loolu la war a jàpp jàpp ne sañ-sañam mooy sàkku waaye nit ñi nag ñooy dogal ñoom moom kon daa war a nangu nag ku nit ñi dénk rek mu ànd ci bu nit ñi xasee dénkaani nag ñëpp dañoo war a wëlbatiku ànd ca te nit ñi dénk loolu mooy di yonte bi waxoon ne euh, mooy mooy safaanu li mu waxoon ne kuñ jaayanteel am ku ca bañ a bokk ka ca bañ a bokk bu faatoo ca loola day faatuwaale ak cedd mooy kon bu nit ñi xasee fiñ tànn ñëpp nag dañoo war a ànd ca loola waaye waruñoo wéy nag di di xëccoo ak def yeneen kon kii bëgg ñu dénk ko moom manes naa wax ne yooyu mooy ay waru kii dénkaane nag moo ëpp solo daa mel na ci lu mel nii kii dénkaane kii dénkaane am na lu war a ci moom kii dénkaane kon mooy kii tànn kii tànn am na lu ko war li ko war bokk na ci mu dëggu dëggu ci tànn gi ñuy tànn mu dëggu ci mu dëggu ci mooy digganteem ak yàlla dafa jàpp ne tànn kii moo gën ci mbooloo tànn kii moo gën ci mbooloo mi loolu jàpp loolu jàpp bi mu koy tànn itam njariñul mbooloo mi la ci xool waaye xool ci njariñul boppam kon day jàpp diggante moom yàlla ne tànn kii moo gën ci mbooloo mi tànn ñii ci des waaye xoolu ci ne tànn kii moo koy jural moom njariñ sàngam wala mooy jural nit yi boppam njariñ sàngam waaye moo ëppal njariñ mbooloo mi loolu la cay xool loolu mooy dëggu mooy dëggu ci dëggu ci ak tànn ndax ni ko waxe woon tànn ak tëb seere la yor te yàlla dafa digle ci seere ñuy seere ñu di ko def bañ koo nëbbu waaye buñ koy def itam ñuy seere dëgg ñuy seere dëgg mooy bi ki ñëwee ne bëgg naa ñu dénk ma ki ñëw ne bëgg naa ñu dénk ma yow li nga xamal sa bopp jàpp nga ne kii moom ñu dénk ko moo ëppal jariñ mbooloo waaye nag kee yéen bopp nangam bopp nangam googee moo tax nga tànn loolu seere lu dul dëgg la ndax boo tànnee rek day mel da nga ne kii moo kii moo ëppal jariñ mbooloo te xam nga ne kii moo ëppal jariñ xam nga ne Samba moo ëppal njëriñ mbooloo mi waaye nga tànn Demba ndax Demba yéen bokk nangam wala moo lee defal nangam loolu seere lu dul dëgg na dëggu nag waaye ki nga jàpp ne moo ëppal njëriñ mbooloo mi nga tànn ko boobaa seere nga dëgg seere nga dëgg yàlla dafa wax ne wa aqimu shahadata lillah leen seere te mu doon lu jub wa aqimu shahadata lillaah waxaat ne dee leen seere dëgg doonte dëgg gi sax dafa dal ci seen kaw yéen walla mu dal ci seen kaw yi waajur walla mu dal ci seen kaw yi bopp moo xam ñu am lañ moo xam ñu amul lañ waaye dëgg gi rek dee leen ko seere يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما kon dëggu dëggu ci tànn gi mooy wane ne seere nit seere na dëgg seere na dëgg seere lu dul dëgg nag te mën a feeñ ci tànn mooy te dëgg-dëgg jàpp nga ne kii moo ëppal jëriñ mbooloo mi waaye leneen tax na nag nga tànn kee loolu seetlu lul dëgg te seetlu lul dëgg nag day lu rëy day lu rëy li ñuy tuddee bàkkaar yu mag yi ya ca gën a magati seetlu lul dëgg da caa bokk da caa bokk wax nañ ne yonent bi doon na ko lim bis doon na lim bis bàkkaar yu mag yi yé ca gën a mag sax yi gën a mag bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yu mag yi bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yu rëy yi tudd njëkkee bokkaale bokkaale bokkaale ak yàlla dara teg ca dënge ay wayjur ñu ne bi muy wax loolu lépp dafa fa sóonu woon dafa sóonu waaye bi mu waxee ñaar yooyu mu jóg ba toog nag daal ne ak seere lu dul dëgg di ko defee nii ak seere dul dëgg rek di ko baamu di ko baamu wenn li ñuy wax léegi naan ko aalo ba saxaaba di wax ne dañu naan ak a neexoon mu noppi ndax fi mu ko àgg kon seere dul dëgg de lu réy réy loo xam ne euh, mën naa feeñ ci ci élection te mooy tànn koo xam ne tànn nga ko te ñu koy tànn xam nga ne keneen te moo ko gën ci moo ko ëppal njariñ ci moo ko ëpp njariñ ci nit ñi kon lu njëkk li mooy dëggu dëggu ci tànn gi te dëggu gi mooy li ñu wax rek li ci topp mooy bañ xool lu dul rek njariñul mbooloo bañ a xool luñ bokk ak kenn ci ñuy sàkk ñuy sàkk ñu tànn leen ñi bañ a xool luñ bokk ndax dañoo bokk aw xeet bañ bañ caa xool loola bañ a tànn diw ngir yenn a bokk xeet bañ a tànn diw ngir ne yéen bokk fu ngeen dëkk wax bu ngeen dëkk moo xam dëkk bu ngeen dëkk la wala région bu ngeen dëkk wala département bu ngeen dëkk yéen a xam bañ a tànn nit it ngir ne yéen a kuréel ab kuréel ci kuréel xeeti kuréel yëpp rek moo xam kuréel yi yu aju ci diine la moo xam aju ci diine su mel ne ab tariqa tànn nit ngir ne yéen a bokk tariqa ñii daal nga xëccoo waaye diim yi sunu tariqa la nekk loola tax nga tànn ko loola dafa wut ak liñ digle walla ñoo bokk syndicat ci misaal kuréel la wala daayira wala lu mën di doon wërta ñu ci sukkandiku kon ñaareel bi ñaareelu war garu tànn mooy mu sori lépp lu mel noonu mooy lépp loo xam ne rek dafa tege ci lu dul njariñu njariñu mbooloo kon daanaka ñaar yooyu ñoo tënk warugaru kii tànn ak tànnam na ko teg ci dëgg dëgg gi nag mooy kim jàpp ne moo ëppal njariñ mbooloo yi mu tànn ko te soril ko lépp loo xam ne ak parparloo lay firi parparloo ñoo bokk nangam bokk nangam gi rek pour jee sukkandiku ngir tànn ngir tànn ki muy tànn léegi nag am na ay nattuwaay nattuwaay yi nga xam ne kii tànn ci la war a sukkandiku ba tànn ci lay sukkandiku ba mën a jàpp ne kii moo ëppal njariñ nit ñi misaal nattuwaay yooyu yenn yi dafa aju ci ki bëgguñu tànn ko yan melo la war a xool ci moom yan melo yan jikko la war a xool ci ki bëgg tànn ko yoo xam ne bu nekkee ci moom mu war koo mën a tànn bu nekkul ca moom nag te nekk ca keneen mu tànn kam na ca moom yooye ñooy li ci njëkk mooy ki bëgg ñu tànn ko ngir lu mën doon ci ñu waxoon dañuy dénkaane am réew mu bëgg ñu tànn ko dañuy dénkaane dañu tànn ñu ñu bëgg ñu teew ca penc na réew mu bëgg ñu tànn ko dañuy tànn ñu dëkk ñu dénk ab dëkk mu bëgg ñu tànn ko lu mu ci man di doon na am xam-xam wala na amuk xam na amuk xam ca lam bëggee ñu tànn ko lam bëgg ñu tànn ko ca na ca amuk xam na ca am ak xam bu dee lu ko laaj la am na yoo xam dafa laaj xam-xam sàngam bu dee lu laaj xam-xam sàngam la dana am xam-xam sàngam boobee yi ci ëpp nag laajut xam sàngam waaye laaj nag xam ak xam ak xam waaye laaj na ak xam kon xam nga mu laaj daal na ko am muy melawu njëkk yi kon mooy na am ak xam xam nga nga xam ne lam bëgg ñu tànn ko ca da koo laaj ñaareel bi mooy ki bëgg ñu tànn ko bëgg ñu dénk ko na doon ku wóor wóor ndax dénkaan la kuy dénkaane ku wóor lay dénk ku wóor lay dénk te li ñuy dénkaane lu rëy rëy la lu mel ne ci misaal daanaka am réew lu mel ne buñ ne dañu tànn ku jiit ku jiite réew mi daanaka réew mi lañ ko dénk suñ alal lañ koy dénk sun lépp dañ ko koy dénk ku mel noonu nag daa war a doon ku wóor daa war a doon ku wóor bu ñu dëkk dañ ko war a dénk ñu ñuy tànn ñu teewal mbooloo mi ca fañi na saka na moom it dañ koy dañu war a tànn ñu wóor kon ki ñuy tànn daa war a doon ku wóor daa war a doon ku am xam-xam dëppoo ak lañ koy tànne waaye daa war a doon itam wóor bu fekkee dee lu laaj kàttanu kàttanu yaram it kàttan googa da ko war a am kàttan googa da ko war a am bu lu laaj kàttanu yaram daa war a kàttan googa yii nii bu ñu xoolee ci alxuraan karim danañ ci gis lu ñu koy won bu dee xam-xam bi ak wóor bi sayidna yuusuf alayhi salaam ba mu bëggee ñu dénk ko ba muy wax di wane lu war a tax ñu dénk ko dajaa tudd yooyu ne yooyu ñu ngi ci man ñu ngi ci man qaala ij'alnii ala xazaa'ini l ard inni xafiidun aliim dafa bëggoon ñu dénk ko bu doon nëgë dañ naan benn ñu ne ministère de finance wala ñu ne ministère de l' agriculture wàllu mbay mi wala wàllu koom daanaka lañ ci wax baax na ndax daanaka koom gi ci mbay mi la aju la wékki woon boobu waaye bi nekkoon nañ ma dénk loolu daa wax lu war a tax ñu dénk ko mu ne wóor naa am naa xam-xam ci wàll gi itam wóor naa te am naa xam-xam ci wàll gi inni xafiizun alim wóor naa danaa sàmm liñ ma dénk te am naa xam-xam bi lii laaj kon ñaar yooyu ñëw na ci Seydina Yusuf bi mu bëggee ñu dénk ko te muy wane fu ñu war a sukkandiku ba dénk ko daa wane ne kat li ñuy soxla ci kuñ dénk lu mel nii mi ngi ci man ak wóor soxla nañ ko ci ku ñu dénk ku man di doon mu ngi ci man xam-xam bu jëm ci lii itam mi ngi ci man kon war nañ war nañ dénk loolu gis nañu itam ci alxuraan ba tey moom it day indiwaale xam-xam ba tey waaye nag indiwaale itam kàttan kàttanu yaram bi nga xam ne am na lu ko laaj moom it bu ñuy tànn ca lu mel noonu dañ cee bàyyi xel ci ñuy wax xaaluut seen Seydina Daawud bi bi mu leen waxee ne yàlla moom la def njiit xaaluut la def njiit dañ koo xeeboon ñu nanguñ daal mu nekk seen njiit mooy leen moo ne ne moo ne nag mat na leen njiit mat na leen njiit ndax yàlla may na ko xam-xam may na ko kattanu yaram yi tam bi ngi laaj booba njiit la njiitul njiit njiit ci xare la woon ci xare lañ nekkoon kon njiit lañ bëggoon mooy ku leen di jiite ci xare yi loolu laaj na kattan kattanu yaram laaj na may leen yàlla may na ko loolu may na ko ci lu mu leen mayut may na ko ci xam-xamu bii itam lu mu leen mayut kon day wane ne ñaar yooyu kon yu ñu war a bàyyi xel la buñ dee tànn ndax bii bi ne leen yàlla tànnal na leen ko biñ gàntoo da leen a xamal ne nag li war a li li li li njiit ci lu mel nii lim laaj mu ngi ci moom mi kàttanu yaram wi ak itam xam-xam bi qaala inna allaha astafaahu alaykum wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism loolu la leen wax ngir ñu xam ne kon eh, yeyoo nekk njiit ñetteel ñetteel bi ñu war a xool ñetteelu melo jikko ji ñu war a xool ci kii sàkku ci bëgg tànn ko mooy nag mu bañ caa xéer lool bañ caa xéer lool mooy mu bañ koo jaral lu ne mu bañ koo jaral lu ne moom daal jàpp na ne bu ñu ko dénkee dana jariñ mbooloo mi mu ñëw xamal mbooloo mi ne man bëgg naa ñu dénk ma te jàpp naa ne dana am njariñ ndax nangam ak nangam nangam waaye nag bu ci àggee fenn si nag euh, boobaa nag bu jare woloo ci ndax dañu naan ndénkaan ku bëgg ñu dénk ko bu àggee fenn fi nag du jare woloo ci ku bëgg ñu dénk ko nag moo lay neexal da neexal ngir nga dénk ko loolu warul loolu nag mooy am lu bare bari suñ gaañ yow ne yow yaa yor looy dénkaane ñëw naa ne bëgg naa nga dénk ma ko ngir ma defal la ci lu lay jariñ ba noppi di la neexal di la jox xaalis loolu ku am xel du war du war nangu loolu dana kii kat dëgg-dëgg defaral liggéeyal ma rek topp ko jóg bu doon liggéeyal ma rek nag du ko jaral mu ci mu ci mu ci joxe xaalis la fu muy tege loolu mooy ñàkk xeer gi ñàkk xeer gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono da daan wax ne yi may dénkaane ku ci xër duma ko ko dénk ku ci xër duma ko ko dénk koo xam ne dañoo di ko sàkk jamono yooyu sax da daan wax ne ku ko sàkk sax duñ ko ko dénk ku ko sàkk boobee mënoon naa nekk jamono yooyu waaye léegi mënut a nekk léegi moom sàkku gi mënut a ñàkk ay jamono mënoon naa nekk ndax moom mooy njiit li xam na ñëpp xam na ñëpp xam na ku ne lam man ak la mënut lu soxla dana man a xam ki ko man mu dénk ko ko kooku lu laaj kenn di ñëw di ko sàkk boobu dañ daan wax ne ku ko sàkk du ma ko jox mooy xoolal boppam rek ba xam ne kii man na ko mu jox ko léegi nag sàkku mënut a ñàkkati ndax léegi loolu mënut a nekkati mënut a nekkati bu ñu bëggee ku jiite réew mi nit ñi mën ñoo jekk-jekk rek ne diw la mun ñàkk am ñu ñëw ne kii ne man bëgg naa bëgg naa ngeen dénk ma kii ñëw ne bëgg naa ngeen dénk ma kii ñëw bëgg naa ngeen dénk ma kon sàkku gi moom jamono yi mun ta ñàkk waaye nag xër ci nag mu jar la nekk moom mën naa ñàkk mën naa ñàkk boo yemee ci sàkku wane yi tax nga jàpp ne war naa tax ñu dénk la ko yam foofa loola mooy xëroo ci xër gi dama koy firee man xar ci tànk tubéy bañ cee xar sa tànk tubéy waaye ku bëgg ñu dénkoon ko xar ci mu xar ci tànk tubéyam nag jarut a wóoloot jarut a wóoloot euh, abu musa al ashari ci saxaaba yi la dafa wax ne mas naa ànd ak ñaar ñoo xam ne ci aw xeetam lañ ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ki ne ko dañoo bëgg nga jiital nu booba jiital mooy jamono ya lu tolloog ay préfet wala gouverneur mooy dëkk yi dafay wut ndaw lu ko fa teewal mu ne leen ñoom ñaar ku ne wax loolu daal xam naa kii ne ko dama bëggoon nga def ma préfet béréb sàngam kii ne ko préfet béréb sàngam mu ne leen lii kat duñ ko dénk ku ko ci xër ko dénk sàkku walla ku ci xër sàkku ji moom niñ ko waxee jamono yooyu manoon naa ñàkk léegi mënut a ñàkk waaye xër gi nag moom mën naa ñàkk ba negee ba negee ku ci xër moom war nañ ko ko mën a xañ kon ñeenteel bi mooy mu bañ caa xër bañ caa xar tànk tuwéyam mu bañ a ko jaral lu ne bañ ko jaral lu ne kii sàkku ñu dénk ko loola bañ ko jaral lu ne juróomeelu melo yi nga xam ne war naa nekk ci kiy sàkku loolu mooy kii tànn moo koy xool ci moom kii tànn mooy xool kii sàkku ndax xam gi mi ci moom ndax wóor gi mi ngi ci moom ndax kàttanu yaram bu fekkee lu ko laaj la mi ci moom ndax ñàkk xër gi mi ngi ci moom juróomeel bi ndax dëgër ak dëgër bi mu laaj mi ngi ci moom dëgër bi mu laaj ndax mi ci moom dëgër gi nag du dëgër ci ci dëgëru yaram waaye dëgëru maanaa dëgër mooy koo xam ne bu dëgg jotee da koy def bu sedd yenn yi yenn yi nga xam ne nit ñi dañ koy sédd ba mu teel leen def dëgg di ko firee noo xam ne dëgg-dëgg doonu ko dëgg-dëgg doonu ko ay maslaa ay yu mel noonu ci loo xam ne day yàq ci dëgër mooy koo xam ne du topp yooya bu dëgg jotee day def dëgg Abu Zar al Gifaari yi ci saxaaba yu mag yi yu baax yi la bokkoon ñu mag ñi ñi ñi jiitu ci lislaam ci la bokk te it ku la woon ci ak mbaax waaye mas naa ñëw céentam ne ko waaw xanaa dooma dooma dénk dara def ma fenn dara daal euh, préfet fenn wala gouverneur wala dara nee mu ne ko ah Abu Dar yow nag dangaa dëgërut lool da nga lool te lii nag ndénkaan ndénkaan te bu àllaaxira gàcca ak réccu rek lay jural ki nga xam ne dénkoon nañ ko lu dul ne da koo jële ci yoon te doxe ca itam doxe ca nañ ko war a doxe kon mooy ku wax a wax bañ dénk ko dara ci yii nga xam ne ëllëg jafe-jafe mën na koo jural lay te tax mu mucc ci jafe-jafe rek mooy ba mu koy jot ci yoon la ko jote te it ba mu ko jotee itam doxin moom ci war dox rek la ci dox waaye lu manque ci loolu rek gàcca ak euh, rëccu la koy jural bu ëllëgee am na feneen foo xam ne dane ko Abu Zar yow kat li ma bëggal sama bopp laa la bëggal du ne ko xanaa dooma dooma dégg dooma dégg dara li ma bëggal sama bopp laa la bëggal moo tax du la ko dénk mooy ku ñëw ci nit ne ko dama bëgg nga nome ma ma ah, li ma bëggal sama bopp laa bëgg moo tax du ma la nome loolu kenn mënu ko dégg léegi waaye li tax mooy lii mu ko wax tax li mu ko wax ne bu ëllëgee daal cee teg ne ko nag dangaa am ak ak ñàkk a dëgër gu ne ci kon ñàkk a dëgër googu mën naa tax doo ca doxe nam ware dana am foo xam ne dëgër la laaj te ginnaaw dëgër gi nekkut ci nag boo fa dëgërul rek mooy doxin ma kon dëppoo ak boo war a doxe te boobaa ëllëg da nga ci am jafe-jafe te bëggul ma la loolu ndax bëggalu ma sama bopp jafe-jafe boobu moo tax bëggalu ma la ko yow li ma bëggal sama bopp laa la bëggal moo tax duma la dénk li nga bëgg ma dénk la ndax moo la ko dénkee da ci def lu jaaduwut te kon dala cay fekk ëllëg bëgguma man mu dal ma moo tax bëgguma mu dal la yooyu yooyu bàyyi xel kon juróom yooyu juróomi melo la yooyu kii war na ko xool ci ki bëgg tànn ko war naa xool ci ki bëgg ñu tànn ko juróomi melo yooyu ak xam ak wóor kàttanu yaram bu dee ko laaj ñàkk xër ak nag dëgër dëgër bu bu dëgër jotee léegi nag ñi bëgg ñu dénk leen kii day ñëw kii ñëw kii ñëw kii dénkaane nag ci lan lay sukkandiku ba mën leen a xàjjale ci lu muy sukkandiku ba ne kii lay dénk du dénk kii du dénk kii li jiitu mooy nit lim man la ko yàlla sant mooy ñii ñëw ci kanamam fi xam-xam àgg moom lim xam ci ñoom ci lay sukkandiku lim xam ci ñoom ci lay sukkandiku xam-xamu boppam boo amee xam-xam boppam boo xam ne amul ci lan lu muy sikk sàkka ci xam-xam boppam lay sukkandiku du sukkandiku ci wax keneen ginnaaw am na xam-xam boppam ci diw mii am xam-xam boppam ci diw mii am ko ci diw mii xam-xam boo xam ne may na ko mu xàjjale leen kon du déglu waxi keneen ndax yàlla du ko laaj la keneen jàppoon wal waaye moom li xamoon la koy laaj yow bi ngay tànn ci xamoon nga ne diw mii moo ko ëppal moo ëpp njariñ tam tam xamoon ko yàlla loolu ko la waaye dina ko diw nee woon na la diw ëpp njariñ déedéet dina amoon xam-xam boppam xam-xam boppam ci lay sukkandiku àddina sépp buñ maase woon wax leneen tam lu tax mu ànd ak ñoom ginnaaw am na ci xam-xam boppam bu ko bu ko wóor bu amut xam-xamu boppam nag mën naa sukkandiku ci xam-xamu ku ko doy man na naa ah, man kay ñii ngi xëccoo waa kii moom xam naa ko waa kii wax dëgg yàlla xawma mbiram mën na koo laaj ku ko doy la ko ca wax mu sukkandiku ci moom itam ba man leen a ba man leen a tàqale kon na sukkandiku ci xam-xam boppam bu dee am na ko bu amul xam-xam boppam ci kenn ci ñi xëccoo ko doyal mu sukkandiku ci la ko wax bu loola amee ba noppi nag mu door leen xool ndax ñoom ñépp dañoo baax maam ñoom ñëpp kuñ ci tànnoon baax na mën naa nekk waaye bu dee kuñ ci tànnoon baax na it dana ci am koo xam ne tànn ko moo gën a baax kon ka gën a baax day tànn bu ñëpp baaxee kon day tànn ki gën a baax loolu lépp nag ci xam-xamam moom xam-xam boppam walla xam-xam bu bu mu jëlee ci ku ko doy kon bu ñëpp baaxee mu tànn ki gën a baax bu amee ku baax ak ñu mel ne neen mu tànn ki baax ki baax nag mooy yooyu ñu waxoon nattuwaay yooyu ñu waxoon ak melo yooyu ñu waxoon yooyu la cay xool kon ñëpp mën nañoo baax mu tànn ki gën a baax mën naa am ku baax ak ñu mel ne neen mu tànn ka baax mën naa ñu sax moo xam noonu la demee wala noonu la ko jàppee moom jàpp na ne daal kenn kenn baaxu ci nit ñi lu war dañuy wax loolu gaa yi ñëpp a yem dañoo gaa yi ñëpp a yem ñëpp a kenn baaxu bu jàppee loolu sax du tax mu nekkoon kon sama yoon nekku ndax ni nga xamee ne bu ñëpp baaxoon dana am ku gën a baax bu kenn baaxutoon itam seen ñàkk baax bu yam mooy dana ku bon am ku bon a bon am ku bon a bon bu fekkee dañoo bon ñoom mënuñoo mënuñoo yem ci mbon buñ baaxoon ñoom ñëpp mënuñoo yem ci mbaax buñ bonoon ñoom ñëpp itam mënuñoo yem ci mbon gën a woyof leeg mbon ngay bu ñëpp bonee ci ak mbonam gën a woyof moom ngay tànn kon mooy nu ñu leen xàjjalee moom mënut a ñàkk mënuñoo wax rek ñëpp kon jarut jarut jarut jarut am na ñu bari ñu koy def ñëpp a yem kon jarut ñëpp mënuñoo bon mën nañoo nangu ne loolu mooy sa ñëpp bon waaye bu ñëpp nag taxul ñëpp yem kon ka ak mbon moom la ñuy tànn kon anam yi tànn ki gën a baax bu fekkee ñëpp baax tànn ki baax bu dee ñu ci dañoo mel na neen tànn ki gën a woyof ak mbon bu dee ñëpp dañoo bon loolu mooy yoon wi ñu mën leen war mën a xàjjale ku def leneen nag loolu yonent bi da ko jàppe wor wor yàlla wor yonent bi noonu la ko tuddee ku def leneen mooy fekk nga ñoo xam ne ñëpp baax waaye am na ku gën a baax nga bàyyi ki gën a baax jël keneen ku baax wala ku baax ak ñu mel neneen nga bàyyi ki baax jël ku mel neneen wala ñépp bon nga jël ko gën a bon yonent bi neen ku def loolu dafa war yàlla war yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga li ñuy wax lépp ñu ngi koy wax ci élection waaye élection ak li ñuy ñoo bokk àtte nomination moom mooy loo xam ne kenn rek mooy tànn kenn rek mooy tànn kenn ne ko def naa la nangam moom it moom li ñuy wax ci élection yëpp ñu bokk ci àtte ci tànn yi tamit ñu wax yëpp da ko ca xel ki nga xam ne mooy rek loolu mooy nomination kii def loolu itam bàyyi xel ci li ñuy wax xam ne mbooloo mi tànn mbooloo mi tànn ñoom itam dañoo war a bàyyi xel ci yëpp dafa waxoon ne ku ku ku teg ku teg fenn ku teg fenn ku teg fenn boobu ñu jublu ci wàllu ay ay préfet wàllu gouverneur wala mel noonu boobu dañ di nommé kon ku nommé ku nommé kenn ci poste te xam na ne am na ko am na fa ku ko ca gën a yey ku nommé kenn ci poste xam na moom mi ko nommé ne am na ku ko ci gën a yey nee na ku def loolu war na yàlla war yonent bi war jullit ñépp waxaat feneen ne ku teg fenn nit te ba tey mooy waxi nga wutaaj lenn rek la te te gis na ko koo xam ne xam na ne moom la yàlla gën a gërëm yàlla gën a gërëm mooy ko gën a yey ba tey war na yàlla war yonent bi war jullit ñëpp kon nattuwaay yi ñu wax ku ko teggi te xam ko nag te xam ko ku ko teggi te xam ko kooku la wax ne war na yàlla war na yonent bi war na jullit ñi xam na ne sàmba mii tànn ko moo ëppal njëriñ mbooloo mi waaye demba la bokkal nàngam wala nàngam wala nàngam ba tax mu tànn demba yonent bi neen ku ko def war na yàlla war na yonent bi war na jullit ñi kon lu ñuy jële ci waxtaan wi daal moo di li ñuy wax politique li ñu wax politique ak politique yiin bokkuñ ñaari bokkuñ politique ci boppam ak politique yiin politique yiin mooy defin defin aw defin nit ñi nag lu bari dañuy jaawale jëmmi mbir mi ci boppam ak aw defin ci mbir mi politique ci bopp mooy lan ñu ber ko fële xool nag politique yiin wii nag mooy wan ñu mën leen a xàjjale jëmmi politique baax na niñ ko waxe politique yiin nag mën naa bon mën naa bon politique yi ni bon it mooy woo xam ne ka ca nekk njariñul boppam la cay xool walla njariñul nit yi boppam waaye xoolul njariñul mbooloo kon bu bu bu xëy na moo am ci réew moom moom lañ nattoo dafa mel ne moom lañ nattoo réew mi mooy dëgg-dëgg politique yi ni fi gën a not doonatu rafet rafetu ñu bari ñu ci nekk seen njariñu bopp lañ cay xool ña nekk di xëccoo itam li ñu doon wax la def di tuumalante di xastante di di sosalante ku ne daal jàpp ne nu mu def ba woon ginnaaw ki muy xëccoo rek sañ na ko ñu ci ne buñ bëggee dara buñ bëggee ni ñu dénk leen dañ leen di dig lu ne dañ leen di dig lu ne te bañ leen koy dig sax man naa am xam nañ ne mënuñ ko waaye rek dañ ko wax nit ñi rek ngir ñu tànn leen loolu loolu aw politique yi la woo xam ne mu ngi ci réew mi te rafetut baaxut bu bëgg lu baax it du bëgg loola lu bari nag politique yi woowu duñ jàpp rek ne aw politique yi la waaye dañu jàpp ne mooy politique dañu jàpp ne mooy politique kon buñ ne politique rek nii rek la mën a demee bu fekkee nii règlement deme na kon baaxut loolu mooy njuum tali bañ a xàjjal jëmmi politique ci boppam ak aw defin ci politique defin wu rafetul yi nga xam ne yàgg na ci réew mi ak baax kenn ku baax du ko bëgg defin woowu la nit ñi jaawale jàpp ne mooy politique ci boppam kenn mënut a politique nu dul nii dinaaw noonu la nag kon baaxut loolu moom baaxut dëgg la waaye nag loola mooy politique loolu aw doxin la ci weneen mën naa am weneen doxin mën naa am weneen doxin war naa am weneen doxin mooy yii ñu waxoon rek ne ku ko doxe moom ak jaamu yàlla lay doon bu mën a am tuyaaba yu rëy rëy rëy ndax njariñ lam ci jariñ nit ñi njariñ lu yaatoo yaatu la doon te nit la muy def njariñam lu mu gën a yaatu rek la muy def euh, doon lu ëpp tuyaaba doon lu ëpp ab yoon kon xajjale ak anam ci politique ak jëmi politique ci boppam mun a ñàkk buñ ko xàjjalee ni mu waree rek danañ xam ne jëmi politik moom baax na waaye niñ koy defee nag mën naa bañ a baax boobaa nag ka dugg moom fexe ba defe ko nu baax fexe ba defe ko nu baax moo xam na mu nu mu ca duggee moo xam da caa duggee rek mu tànn jotee mu dem tànn wala da caa duggee moom bëgg sax ñu di ko tànn waaye te moom daal na mu cay duggee moom na fexe ba mu baax jëmmi politique ci boppam rek doonut lu bon nañ koy defe moo moo mën a bon kon bu ñu xamee ne politique loolu mooy àtteem te li ñuy tuddee élection ci biir politique la bokk te mooy tànn kenn wala ñenn ngir dénk leen lu ñëpp moom loola ak bëgguñu tànn ko ak ciy tànne ku ci nekk am na warugar ku ci nekk am na warugar bu ci nekk bu taxawee ca waru garam li ñu waxoon ci tuyaaba ak yoor mën na ko jaajële ëllëg ak njariñul àdduna li ba noppi nag njariñ lu xew la ndax njariñ mooy buñ jaaralee mbirum mbooloo mi ci yoon rafetal ko baaxal ko dana doon njariñam moom doon njariñul ñëpp ñu amee ci njariñu xew ba noppi di ci séentu njariñul ëllëg ci ku doxee ni ñu ci war a doxe waaye yonent bi xamal nan ne ku ci doxe nu mu ci wattu doxe it war war la wor yàlla la wor yonente bi la wor jullit ñi la kii tànn bu tànnee kum xam ne ku ko gën a yaaya nga fee bàyyi ko fa tànn kii nee na war na yàlla war na yonente bi war na jullit ñi kiñ tànn ba noppi lim ko sant mooy mu yërëm ñim jiite mu yërëm ñim jiite àgg na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan ne yàlla ku jiite jullit ñi te yërëm leen maa ngi lay ñaan nga yërëm ko ku jiite jullit ñi te yombalal leen seeni mbir maa ngi lay ñaan nga yombalal mbiram waaye ku jiite jullit ñi te tar te tar ci ñoom te tar ci ñoom maa ngi lay ñaan nga tar ci moom kon fi mu fi teg lu mel noonu fi ko àggal kon mbirum politique dëgg-dëgg du du du lu baaxut lu baax lool la du lu woyof fi tam loo xam ne nit ki danaan day jàpp rek bu ko neexee def bu ko neexee bañ def bu ko neexee bokk ci bu ko neexee bañ cee bokk ndax ñàkk cee bokk mooy wane na yow mbooloo mi seen mbir yitteelu la mbooloo mbirum mbooloo mi yitteelu la loolu du du ab jullit lu mar a def am na nett yooyu yoon tamit loolu la cee wax day wax ne ku mbirum ku mbirum jullit ñi yitteelul bokkul ci noonu mooy bokkul ci jullit ñi mbirum ñi ku bokkul ci jullit ñi bu ne bokku ci mooy ak njullitam des na ak njullitam des na kon politique nit ki wër du wax rek ne euh, woyofal ko daal bu ko neexee def bu ko neexee bañ def ndax dëgg-dëgg du lu woyof li am solo rek mooy ni koy defee ni koy defee bu fekkee yaw tànn rek ci nga féete bu tànn jotee nangay ngay tànne waaye bul na ñëpp a rek bul ne ñëpp génn mel ni daal ma sañ nga cee jàmbure jàmbure bi moom damay ragal lool mu doon nëbbu seere nëbbu seere te gis nañ li ci yàlla wax waaye moo tane wala lee ko yées seere lu dul dëgg moom moo yées mooy dem nga dem nga tànn waaye tànn gi dem nga tànn waaye tànn gi tegoo ko fi ñu ko war a teg kon kii ki ne ñëpp a yem rek bañ a bañ a dem kooku dañuy ragal mu bokk ci ñi nëbbu seere te nëbbu seere yàlla dafa ne ku ko def def na bàkkaar waaye ki yées mooy ki dem ba noppi tànn kum xam ne kam tànnul moo ko gën a yey kooka moom dafa seere lu dul dëgg dafa seere lu dul dëgg dafa war yàlla war yonent bi sallallahu alayhi war jullit ñi sëriñ Abdul Xaadir loolu daal moom laa jàppoon ne ma nees na ko tàmbalee waxtaan wi noo ngi jéggaluwaat ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kay jërëjëf sëriñ Cheikh naa ñu ngi santaat bu baax a baax a baax ci ni jotaay bi doxee mu mel ni ci biir waxtaan bi sëriñ bi na ay tomb yu baree bari yu aju ci tomb bi ñu doon waxtaane te mooy njiit ak ban taxawaay la ci jullit war a amee ci njëlbeen gi rek xam na xam na nag ne gi euh, ñuy waxtaane léegi ci ñu ñuy tuddee politique moo tax xam na ne mooy politique ci tënk na ci ni ko waxee politique mooy rek saytu doxaleeku nit ñi ci àdduna saytu seen doxaleeku kon loolu dafay wane ne kon lislaam ci am ab taxawaay moom sël ndax ginnaaw bi dund gi aju rek lislaam lépp luy doxal dund gi daf ci am kàddu daf ci am taxawaay bu mat sëkk ndax lislaam moom xamul teqale diggante diine ak àdduna lislaam xamul teqale diggante ni ñuy fàggoo euh, suñu tey ak lañuy jariñ ëllëg ndax daanaka àdduna comme ni ko sëriñ bi waxee rek bayuwaay la boo xam ne fañ koy jariñoo meññal ma mooy ca àllaaxira kon moo tax daanaka domaine boo dugg rek lislaam daf ci am kàddu lislaam xamul di tàqale diggante diine ak économie diggante diine ak social diggante diine ak politique ak sax yeneen domaine yi nga xam ne yëpp rek siiw na ci nit ñi ñu koy faral di wax wala di ko jëfee di ko tàqale ak diine politique bu mu mën a doon nag politique bu mu mën a doon rek ak nuñ ko mën a defee bu fekkente ne euh, ci ne ko suñu seex naa xamle foofu la yam noonu lañ ko déggee dañuy jàpp ne lislaam dana ci ab taxawaay te lislaam bépp tomb bu am ab taxawaay am ci gis-gis dana wuutal àtte dana wax maanaam dugg ca wala génn ca lu mu mën a jariñ nit ki wala lu mu ko mën a wàññee ndax da cay duggee ndigal wala bu ci génnee dafa def tere moo tax ci biir waxtaan bi xam nañ ne politique farata la waaye nag du faratay jëmm joo xam ne dañ naan kenn ku ci ne ci nit ñi war ngaa politique yi li ñu tuddee faratu kifaaya la nga xam ne daal mënut a ñàkk ñenn ji jullit ñi taxawee waaye bu ko ñenn taxawee rek mu wàcc ñi ci des li tax mu nekk fardu kifaaya it mooy dafa aju ci njariñu nit ñëpp te xam nañ ne ci lislaam lépp loo xam ne dafa ci njariñul nit ñëpp dañu koy aajowoo di ko yittewoo day nekk fardu kifaaya maanaam day nekk warte foo xam ne ñenn dañ ko war di taxawee saa yu ne bu ko ñëpp bàyyee rek ak ceetaan am ci ñëppay daal di am bàkkaar boo xam ne dañ koy bokk politicien bi nga xam ne nag mooy yor doxaliin woowu kon ci buñ déggee ne nii mooy politique ci ni ko suñu Cheikh naa waxee kon war na di bàyyi xel saa yu ne di jiital njariñal mbooloo mi bu ko njariñal boppam tax a jub ndax saa yu doxee ci anam googu rek jàpp ne dañu jàpp ne lii muy def ak jaamu yàlla dañu jàpp ne sax lii muy def jaamu yàlla bu rëy la bu boobaa mën na caa am tiyaabu ju rëy rëy mën na caa am poyut suñu borom bu mag mag ndax comme ni nga ko waxee lislaam xam nañ ne moom lépp looy def te muy ak jaamu yàlla suñu borom mën na la caa fay waaye nag yi nga xam ne dafa aju ci eh, njariñal ñëpp saa yu ne fay gi mooy gën a rëy mooy gën a am solo yi nga xam ne ay jëf la yoon xam dafa aju ci par kenn kenn nit par ay benn benn ci biir loolu gannaaw laytaay googu ñëw nañ ci lan mooy euh, élection wala tànn wala ak tànn te weesuwul rek mooy lu nit ñi bokk daal ni dañoo bëgg ku ñu ko saytul ku ñu ko yoral ku ñu ko doxalal loolu rek mooy tànn mooy élection bari na nag ay xeet lool bu dee ci fii ci biir réew mi am nañ ci ñetti xeet yoo xam ne moo gën a siiw mënees naa tànn njiital réew mënees naa tànn koo xam ne moo ñuy nekkal ca assemblée waaye mënees naa tànn njiitul dëkk wees naa teel ni njiitul région bu ci ne mën naa nekk euh, tànn ku mu ci mën a doon nag kii tànn ak kañi tànn daanaka ñoo koy séq bu dee kii tànn mënees naa wax ne def na lu baax loo xam ne mën na ca am tiyaaba ju rëy waaye loo xam ne jëf la ju noobul joo ne taarix da koy seedeel ndax lii ku jóg jël sa carte dem taal ni dafay wane ni kon mbiru mbooloo mi ñor na la te euh, yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ci ay xadis yu wute ne képp koo xam ne suñu mbir mbiru mbooloo mi ñorul la bokkoo ci ñoom kon ab jullit dafa war a am yëg-yëgu mbooloo xisul jamaa yi dafa war a nekk ci jullit bu ne ma yonent bi sallallahu alayhi wax na ko ci xadis ne euh, bu ngeen xoolee ni ngeen war a nekkee ni ngeen war a ànd ni ngeen war a jàppalantee day mel ne rek wenn yaram moo xam ne lu ca metti cër bu ca metti yaram yaram bi yëpp yëpp waaw beneen xadis muy wax naan jigéen euh, jullit ñi ni ñu war a jàppoo seenu ànd yi ni mu war a rafete day mel ni rek ay bëñ yoo xam ne mu ngi ci biir gi ni ñuy rangé ko ak ni ñuy rafete kon daal mbirum jullit ñi dafa war a ñor ñëpp képp ku jug nag di tànn kon loolu dafay wane ne mbirum jullit ñi ñor na la waaye kii tànn ki ki ki ki bëgg ñu tànn ko it ki taxaw ne dama bëgg ñu tànn ma dénk ma moom it ok loolu it jëfam jooju wane na ne mbirum mbooloo mu ñor nag waaye kii tànn saa yu jigéen tànn na xam ne la muy def dafa am taxaw taxawaayu seede seede nag xam nañ euh, dara ji am ci islaam ndax suñu borom subhanahu wa taala dafay tere ku ko nëbbu day jàpp ne lépp loo xam ne rek xam nga ko ci nit ki te muy lu wér lu wóor saa yu ñu demee ba soxla. ba ba bañ soxla ñu ci ca pénc ma da ngaa war a taxaw génne seede jooju kon nag boo gisee ab euh, man-man boo xam ne dañ ko bëgg a dénk ay nit am ñu ñëw taxaw ne dañoo bëgg ñu dénk ñu boobaa la cee sa warteef mooy loo xam te ñoom nga ñëw seede te seede ci nag la ci gën a gaaw mooy nga tànn ki nga xam ne jàpp nga ne moo yore melokaan yi nga xam ne rot na ci waxtaan bu ñu xasee tànn ba noppi ñu xam ne liñ def ak jaayante la maanaam ay kàddu la yoo xam ne dañ koo tënk ñëpp dëppoo ñu ne dëppoo ci ne moom lañu war a doxe jaayante nag saa yu amee moom kenn sañu koo xët wala ku ko xëtt rek dañu jàpp ne war nga ab warkat la ci biir loolu ñëw na ci waxtaan wi ki nga xam ne dañ koy tànn yan melokaan la war a amee maanaam nuñ mën a def ci lan lañ mën a lan la mën a wane loo xam ne daal ci lañ mën a ci lañ ko mën a jàppe ba tànn la ci jiitu mooy ginnaaw lañoo teg ay man-man yu bari wala dañoo teg benn man-man daal ne dañoo bëgg ko ñu ko yoral bu boobaa bu ñëwee ne dama bëgg ku ma ko dénk war naa feeñal luy wan ne buñ ko ko dénkee mat mat na dénkaat mat na dénkaat mu nees nag koo dénk kon war naa wane man-man war bu fekkente ne daa am ñu ngi xëccoolit war naa wane lam leen mane ca biir loolu moo tax sëriñ bi wax na ne ñuy xëccoo ñu ne kenn ku ci ne sañ ngaa wax sa man-man fa nga toll ci li nga xam ne moom nga bëgg ñu moom nga dénk la ko waaye sañ ngaa critiquer sañ ngaa wax euh, ci programme ñi nga xam ne ñoom it dañuy xëccoo ak yow jàpp ne ñoom it dañ leen a war a mën a dénk bu boobaa nag la nga critiquer rek lay nekk boo xam ne jëf jëf lu baax ak it bëgg a sottal lu baax moo la cee tax a jóg waaye doo am ay ñàññi doo am ay saagante doo am ay xastante doo am waxante lu ñaaw kon nag mën naa bàyyi xel lool ndax dafa mel ni suñu dëkk yi mën nañoo campagne lool mën nañoo duufal seeni programme lool waaye it mën nañoo ŋàññeente lool mën nañoo saagante lool mën nañoo waxante lu ñaaw lool day feeñ ci discours yi di feeñ ci média yi di feeñ ci plateau yi di feeñ waaye nag dañu jàpp ne rek képp koo xam ne def lu baax moo la tax a jóg saa yooyu xëccewoo jëm ci jëf lu baax jàpp naa ne wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw mën na caa ñàkk ñaareel bi nga xam ne moo war a am ci ki ki ñuy tànn ki ki jug ne damaa bëgg ñu dénk ñu dénk ma mooy mu jàpp ne lii muy xëccoo moomeelu nit ñi la kon ñoom ñooy xool ku leen neex rek ñu dénk ko kon saa yuñ tànnee keneen ku dul moom na wëy ca tànn kooka bu ko defee daal di teewlu ne moom it bokk na ci jaayante boobu fii it loolu it dañuy gis ne rëq-rëq da cee am léeg mën naa taxaw pour ñu tànn ko da ko jaral mu ne waaye du ci yam buñ tànnee keneen da gis ne day continuer di sànni ay xeer wala mu mere nit ñi wala mu leen di jànni wala sax far mu génn réew mi dem tukki feneen loolu yëpp yaakaar naa ne jëru ko nag. jaru ko nag fekkee lu baax rek la taxoon a jóg yeneen bunt yu bare bare mi ngi ci réew mi yoo xam ne war nga ca mën def lu baax tey jàpp naa ne réew mi ku jóg ne soxla naa nangam poste sangam ñu dénk ma ko bu ñu la ko dénkut it dénk ko sa morom war ngaa mën a dem jàppale ko war nga koo mën a jàppale ca yéene ji amoon yéene ji moom du rek bu ñu la tànnee koy feeñal waaye bu la tànnut war nga ko mën a feeñal ci ay yeneen bunt bu dee kii tànn ay melokaan yi mu war a amee ba ca jiitu mooy dëgg dëggu ci tànn gi dëggu ci tànn gi nag mooy képp koy tànn rek da xool ba xam ne lii nga koy tànne am nga yaakaar ci ne man nga ko man na ko boobaa doo ci jiital ak parparloo doo ci jiital ak mbokk kase doo ci jiital ak xaritoo kase doo ci jiital it kase ndax loolu it lu yaatu la ci réew mi jiw sàngam da nga ko tànn bi nga waxee tànk tànn nga ne day sama waay wala nga ne moo sama mbokk wala nga ne moom ay teraangaam saa yu ne dee egg ci si man loolu du du lislaam dénkaane kon waxoon nañ ne tànn gi moom seede la te koy seede ku ne dangaa war a seede ngir dëgg dangaa war a seede ngir luy amal njariñ dangaa war a seede rek te yàlla tax suñu borom moo waxoon ne wa aqimu shahadata lillah waxoon ne kunu qawamina shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin kon li ngay seede moom ak donte sax day dal ci sa kaw donte day dal ci sa mbokk yi la gën a jege day nekk ngaañ ci yéen teewul bu seede dëgg jotee da ngaa war a seede dëgg te yàlla tax waaye te intérêt euh, mbooloo mi tax képp ku def lu dul loolu dañuy jàpp ne da ngaa neen da ngaa def shahadatu zuur te xam nañ bu baax ne seede neen dafa bokk ci bakkaar yu mag yi dafa bokk sax ci bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yu mag yi ndax xadis boobu nga xam ne moom lañ fi sëriñ bi nett léegi te yonent bi sallallahu alayhi waxoon ko bi muy lim bàkkaar yi gën a mag bi mu waxee bokkaale teg cee dëgg ay waajur fekkoon mu soonu dafa jóg daa cee teg ne ak seede lu dëgg ak seede lu dëgg ak seede dëgg mel ni ko aalu ca nam ko doon waxee loolu day wane ne kon mbir mi am na fu mu ko toll am na fu mu ko àgg euh, kii tànn it war naa bàyyi xel ne lii muy tànn lii muy seede seede wut jëmale ci boppam rek maanaam intérêt bi nga xam ne moom lay xaar di ko euh, séentu ci ki nga xam ne moom lay tànn du intérêt boppam rek yam ci moo tax kon saa yuy tànn di seede war naa bàyyi xel wàllu ko loolu moo koy indil ba du ak parparlo du ca am waaye ne kii damaa bokk ak moom xeet rek tax ma tànn ko du ca am wala damaa bokk ak moom kuréel ak kuréel bu mën a doon mën na nekk kuréelu politique mën na nekk kuréelu diine euh, kon wax nañ melokaan yi ki ñuy tànn ak melokaan yi kii tànn ku ci ne lu mu war a melowoo bañ man koo tànn yan nattuwaay nag lañuy jaar ba tànn tànn bu wér bu dëppoo njàngaleem lislaam bu dee ki ñuy tànn la ci jiitu mooy na xam lañ koy tànnee na ko xam am na ci loo xam ne laaj xam-xam bu wér am na ci loo xam ne day laaj expérience rek expérience am na ci poste yoo xam ne expérience da ci baax kon daal bu fekkee lu ñu war a jàng ba xam ko la ba am ci diplôme na ko jàng ba xam ko bu fekkee lu ñu war a am expérience la na ci am expérience waaw loolu moo ci jiitu na nekk ku wóor ndax ndénkaan la ndénkaan nag ko wóolu nga ko jox li ñuy dénkaane muy post bi wala muy réew mi wala muy dëkk bi wala muy gox bi ku ñu wóolu lañ koy jox kon bu mu nekk ab workat kóolute gi nag ñu bare bari léeg-léeg danañ ko feeñal avant ñu leen di tànn waaye da gis ne bu ñu leen tànnee ba ca ngoon nga rek lañuy tàmbali di feeñal ak di fésal bu bokk te kóolute googu nga xam ne ci lañ tabaxoon suñu tànn na am kàttanu yaram ci bu ko laajee ndax bari na métier yoo xam ne day moo tax sax da di seetlu léeg bu ñuy tànn jëwriñ ci benn poste ca charte dañ cay boole na am kàttanu wala léeg-léeg ñu cay boole âge na am at sàngam lu mu lu mu gàtt gàtt na am at sàngam waaye lu mu doon mag mag mag bu mu àgg ci at sàngam loolu kàttanu yaram lañ cay lañ cay bàyyi xel yooyu ay mbir la yoo xam ne feeñ na ci alxuraan rabbi ij'alni ala xazaa'ini al alim mooy ku wóor ba noppi am xam-xam ca la ñuy sàkku ca moom wa la lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'asa lakum taaluta malika bañ ko waxee ñoom dañu waxoon ne xaalu an naa yakunu lahul mulk euh, waaye la leen suñ borom tontu ndax dañoo jàppoon ne ñoom ñoo ci gën a yaay mooy leen déedéet inna allaha astafaa alaykum wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jismi kon wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jismi xam feeñ na ci kàttanu yaram feeñ na ci waaye inni xafidun alim kóolite feeñ na ci xam-xam feeñ na ci ñaar ñetteelu charte bi mooy li muy wut nag bu mu ci xër lool bu mu ko jaral euh, xar tànk tubayam loolu it lu siiw la ndax fii da gis ne ñaare ki ñu bëgg a euh, dindi ci moom ki ñu bëgg a yëkkati jotaay bi da cay xër lool waaye ki bëgg toog ca jotaay bi da cay xër lu xër gu ëpp dañuy jàpp ne nag képp ku ñuy dénk rek nga war a doxal am na noo cay xëre kóolute ga day yàqu kon xër gu ëpp gi wax dëgg yàlla ndénkaan agut foofu dañuy gis rek ne tey boo yoroon sa alal wala sa matériel wala lu mën a doon nga koo dénk nit léeg-léeg am na nu mu lay yàkkaw li boo nu mu cee xëy da xam ne boo ko joxee adduna tukki loolu yi nag mooy am ci suñu njiit réew yi mooy am ci suñu njiiti gox yi mooy am ci ña ñuy ca eh, barab ya nga xam ne fa la ñuy suñuy mbir ñeenteel bi mooy na nekk ku dëgër dëgër gi fii nag ni ko sëñ bi waxee jubluñ ci dëgëru kàttanu yaram waaye mooy sabaat rek nga xam ne bu dëgg jotee dana taxaw taxawal dëgg du am kersa ci di maslaa ci yoo xam ne bu dëgg dëppoot ak diine buñ demee bay tànn nag te ñu bari nekk fi ñoom ñëpp amee qualité yi wala am ñu ko ci am am ñu ko ci amut bu boobaa moom la ko suñu borom sant rek moom mi tànn mooy na jëfee kenn kenn tulaay kàttanam kum ca xam xam-xam bu wóor na sukkandiku ci xam-xam bam xam ci moom kum ca xam-xam kum ca amut kum amut ca moom xam-xam bu wóor na sukkandiku ci xam-xam comme wóolu bu ko defee fekkente ne ñoom ñëpp ay nit ñu baax lañ bu ñàkk léeg-léeg am ko ci gën a baax mu tànn ko ci gën a baax bu fekkente ne ñu baax lañ nekkan di ko sàkkandoog ñoo xam ne e, baaxuñ na baax wala ka bàyyi fa ña jagut bu fekkente ni ñu jagut rek a fi nekk léeg-léeg du ñàkk am ca ku jagadi am ca ku gën a jagadi am ca ko gën a yées kon boobaa nu tànn ko jagadi bàyyi fa ko gën a jagadi comme niñ ko waxee fii nag ci tànn ci élection noonu lañ ko waxee ci nomination nomination mooy loo ne kenn rek moo def ay élection yu mel noonu mbooloo ñoo koy def ku rek melokaan yi ñu wax ne moom nga moom la xool ci ki ñu tànn mooy booloon kenn war a nomi melokaan yu mel noonu ngay xool ci moom sëriñ bi mujjee ci fàttali ne war nañoo bàyyi xel bu baax a baax ci bu ñu waxtaanee tomb yu mel nii di xaajale politique dëgg-dëgg ci ni ko lislaam gisee ak niñ ko taarix jàngale ak it politique yi bu ñuy def maanaam politique yi ni ko nit ñuy dunde nii bu dee ni ko nit ñuy dunde nii moom baaxut waaye wut a tax it ñu bàyyi suñu loxo ba ne duñu tànn wala ba ne duñ taxaw ay élection wala ba ne dañuy bàyyeendi ko ku fi toog rek baax na déedéet saa yu ne da ngaa di was ba sa àq di xool katane nga koy euh, nga koy wooteel di ko tànn ca poste bañ ko soxla yaakaar naa bu ñëpp di sabablu rek bu yàggee système bi dana changer te loolu mooy bëgg-bëggu ñëpp bu ñu demee ba tànn ba ki ñu tànn war naa xam ne li tax ñu tànn ko fi mooy euh, njariñoom mbooloo mi kon ci biir loolu war naa feeñal euh, luy dalal xel mbooloo mi te loolu la ca jiitu mooy fisal yërmaane di ko dund ak ñoom am ci ñoom ak ñeewant kon daal ci gàttal yaakaar naa tomb yi mooy ëpp solo ci yi ñu doon waxtaan waxtaane tey àndoon ko sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mu nekk waxtaan wu am solo woo xam ne jàpp naa ne ñëpp am nañ ci euh, part pour part de responsabilité pour diglu ko waaye jëfe ko ndax àdduna ñaar rek a fi nekk ci wàll gi muy ki xëccoo bëgg ñu jox ko ak ki nga xam ne euh, day tànn pour bëgg keneen ko kii faal ki ki ki bëgg ñu fal ko ak ki kii fale ñaar ñooñu rek ñoo fi nekk kon jàpp na ne ñoom ñëpp waxtaan wi war na leen a solo kon ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax di ko gërëm ci turu daayira moo xam ne da xëy na ci jotaay bi ak jotaay yi weesu yëpp ñu àndoon ko moom muy ku disponible di membre ci daayira bi waaye it di ci jàmbaar lool saa yu ñu ko soxlaa ak ci heure bu ñu ko soxlaa ci lu ñu ko mën bi soxlaa rek dafay fekk si daayira bi am ci taxawaay bu rafet ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom gën a yokk xam-xamam gën a yokk kàttanam gën a yokk man-manam jariñ ñu ci ay waxam waaye it euh, musal ko ci mbokk ak lépp loo xam ne ay euh, gàllankoor la ci àdduna euh, suñu tomb suba incha allah dafay jëm ci lu ñu wax alxitaabu diini yi bayna alwaaqi wal ma'muul mooy kàddug diine ji fi mu toll ak fi mu war a àgg kàddug diine ji loolu ñu wax ko ànd ak borom xam-xam baneen muy sëriñ Fallou Bousso Xasan ci waxtu wi waxtaan yi baaxoo tàmbali te mooy euh, juróomi waxtu ci ngoon bu tegalee fanweeri minute ñuy sant bu baax a baax képp koo xam ne mi ngi doon teewlu waxtaan bi moo xam ñi toog ci jotaay bi ak it ñi ko doon teewlu ci jumtukaayu xarala yépp di ci jiital ñi ko doon ci suñu site officiel MK TV ak it ñu ko doon teewlu ci site yi yépp yi ci des yépp ci rajo yi ci télévision yi ci canal yi ak ci YouTube bi yépp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox di daje ba suba ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rasul